jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak procès en bu Khalifa Sall nag ak ñamu àndal dàq nañu ko ba juróom-ñeenti fan ci weeru sulet loolee nag gannaaw ba ko euh, parquet général sàkko ñu gis nag avocat yi nga xamante ne nii ñoom ñooy layal Khalifa Sall amuñu lu leen gënal ndax bu ñu sañoon euh, daanu ko yóbbu rek ba weeru novembre ñi far ak nguur gi tamit mu mel ni tey nañu doxalee neexul leen Chérif Dia. avocat yi Khalifa Sall ak ñi mu àndal danoo bëggoon ñu maayaat leen tàng wante loolu président cour d'appel di Demba Kandji àndu ci moom dafa ànd rek ci càkkuteefu procureur général di Lassana Diaby. moo di ne que ñun avocat de la défense ñi nga xamante ne ñoo féetewoo ci xalifa Sall ak ñi mu àndal danoo bëggoon ñu dàq procès bi ba fin novembre. cour bi kii la topp. parquet général la topp parce que parquet général nee na weer doy na pour préparer te man jàpp naa ni loolu erreur la parce que kii accusé ki nga xamante ne moo ñu teg tuuma ak ki nga xam moom la teg tuuma tegagum ko ay daan mu bëgg a tegeeku daan yooyu defe naa ni seen diggante ñoom ñaar ci ñu teg ay daan moom la ñu waroon gën a may nopp su ne man mun ma pare ci weer il me faut plus pour ma pare kooku la ñu waroon gën a avocat yu état bu Sénégal it ñoom amul lu leen neex buñ sañoon ñu daal di jublu ci àtte bi tey jii. donc loolu renvoi boobu renvoi boobu c'est normal bien que ñun avocat état du Sénégal ñun pare woon nañ tey pour que mbir bi ñu àtte ko tey ñu jeexal ci parce que dossier bi dafa simple appel jugement la benn jugement la ñuy def appel jugement boobu la ñuy critiquer te ñun lu ñu intéressé état du Sénégal mooy suñu intérêt civil. parce que seulement état du Sénégal euh, tribunal mayu ko woon dommage intérêt yu mu laajoon donc loolu rek la ñuy loolu ñun suñu appel bi foofu la cantonné léegi nag bu ñu demandé novembre novembre dafa sori. ñu ñi tuumaal ñoom teewoon nan muy xalifa sàll sol lu weex comme ni mu ko tàmm di defee ci wetam Mbaye Touré ak Yaya Bodian ñeneen ñi ñoom danoo rek comparaître libre maanaam jóge seen kër ñëw muy Ibrahima ma Yatma Diaw Amadou Mactar Diouf. Fatou Traoré ak ñaari percepteurs yi di Mamadou Omar Bokum ak Ibrahima Traoré. ñu wax ci njàng mu kawe mi ca diwaanu dara eh, kii di Mouhamadou Fallou seen nag di étudiant boobu eh, faatu woon ci anam yu metti ba mu amee léegi am na ñetti ay bis ba nga ni nag étudiant ya ñoom nanguwuñu rek kon dellu ca eh, classe ya waaye rectorat ba ak CROUS ñoom tàmbali nanu seenub liggéey donte nag taxu ko am solo lool waaye ñoom daal ñanga nga ca Ousseynou Diop Habib Seck ci leeral. université Gaston Berger bu Ndar liggéey bi tàmbaliwaat na nànk-nànk bu dee ni sax menuisier yi ñu ngay kocc koccal di defaraat. fi ci direction bu insertion ñoo ngay tàmbali randal lépp lu yàqu ngir delluwaat ci bureau yi. documents l'ordinateur aussi bu mu doon liggéeyee dem na voilà donc fii moom dara des ko fi sima ay ñu dajale euh, chef de service ak yu police yëpp toog waxtaanaat. jël ay directives si directives yooyu moo doon nan la def pour reprendre liggéey bi ci biir Crous. liggéey boobu nag effectivement euh, xam nga dafa am ay mission yoo xam ni étudiants yi dañ koy demander tout situation bi mu métti métti métti dafay fonctionner. centre régional des œuvres universitaires itam dem bi ak dikk bi li ko waral mooy fexe defaraat bureau yi ordinateur yu yàqu yi imprimante chaise table de bureau lépp ñu génne ko loolu teewul liggéeykat yi tàmbaliwaat nañu. ko defar euh, au moins pour buntu yi tëju ñu sécuriser d'abord lu koy parce que comme amul woon lakk-lakk donc dañuy saccagé ñu defar na yi defar porte yi au moins sécuriser lu koy ah ñu xool avec les moyens du bord kan lañ mën commencer liggéey. il reste simplement que sur le plan administratif comme yi dañ ko lakkoon looloo tax commencé waat di moo tax ngeen gis tey Euh, nettoyé nañu lépp certains bureaux yi nga xam ne mën nañ ko récupérer récupérer nañ leen ñi ngi liggéey alhamdulilah di ñaan yàlla aussi mu continuer ba ñëw. li des nag mooy njàng mi tàmbali ci université Gaston Berger bu Ndar tax ñi nekk ci bërëb yi di sàkku xale yi ñu demaat ci amphithéâtre yi. yeneen services yëpp l' hébergement la restauration euh, le médical yëpp mi ngi fonctionné kon nag ñi ngi leen di ñaan. ñu ñëw reprendre effectivement euh, jàpp ay dugaat en fii jàng yeneen problème yi nag ñu jéem ko peut-être am nañu kii de bonne volonté yi ciy dox ñu jéem seet la solution meilleure pour tout parce que quoi qu'il en euh, le temps là ne peut pas attendre. directorat ACP ak CROUS liggéey ba doxaat na même bu dee ni sax bureau amatu fa lii mbir ci ñëpp di ko laaj mooy étudiants yi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar kañ la ñuy tàmbaliwaat lii di njàng mi. jaajëfal ko bu baax Ousseynou Diop bëccëg bi nga xamante ne nag moom la ñu jagleel alam gi tey ji rek lañu ko màggal ñu def nag ab seetlu euh, ci mbalit mi rawatina ak mbalit mi nga xamante ne léeg-léeg askan wi nag du xam rek nu nu ko war a téye ndax mbalit it du caagante ne loo jëkk rek daal di def ca mbalit ma war na am ak séddale boo xamante ne war na caa am lu ci mbuus ñu ber ko leneen it naka noonu fii ci Sénégal ñu ne nag lu bare bare du ñu ko bàyyi xel boo tax na nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu ko alam gi di sàkku rek ci Sénégalais bàyyi xel bu baax a baax loolee di mbuusu plastique yi Cheikh Diop. ci bile mbalit li nga xam ne moom moo di déchet plastique yi nag ni fi xuus mu mel ni fii ci réew bu Sénégal frataalu ñu benn yoon li nga xam ne moom moo di xaajale mbalit yi néew na sax nga gis makkan boo xamante ni dañoo xaajale yile mbalit. vraiment pas tout le temps bon sachet yi lañu fay def ak yeneen mbalit yi dañuy boole li ci ëpp vraiment li ci ëpp dañuy boole. lii mën na indil jafe-jafe ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu mbalit. dafa am ci yoo xamante ni dañ koy départager am na yoo xam ne mu ngi ànd ci mbalit bi di dem mais yi départager dafa am ñu koy soxla ñun ñoo ko jël nag dem jaayaat leen ko ñoom nag ñoo xam liñ koy utiliser mais ñun dañ koy ñun liñ ci soxla rek moom dañ koy per mooy siñ saako yi ak lee ci kaw bidon vingt litres yi cinq litres yi yu ndaw yi yooyu yëpp la ñuy ak yenn mbuus yi. moonte day xaajale bi ñuy xaajale mbalit yi loole mën a defar gafagak yenn ci ay sénégalais. ñun suñu rôle mooy ñu récupérer tout ce qui est déchet plastique ba pare euh, ñu transformer waat ko en des matières finies. ku xam plastique xam ne plastique ci pétrole la jóge ci la ñuy am place yi nga xam ne yëpp moom la ñuy def muy chaise plastique di euh, poubelles yi ñuy defar ak sachet yi nga xam ne moom la ñuy jaay yëpp ci pétrole la jóge donc ay scientifique depuis 2016 ñoo ngi expérimenté ci seeni laboratoire en Europe pour plastique boobu sachet bi nekk ñu mën ko delloowaat ci li nga xamante ne mooy euh, ni mu nekkoon mooy état premier maanaam def ko pétrole mais ñoom dañuy dem fu gën a sori ñoo ngi ko bëgg a def li nga xam ne mooy carburant d'où l'intérêt foofu la amee solo tey ñu war a nag euh, di trier ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu alam gi nag di sàkku ci képp ku yeewoo ci tund wi nga daal di jox gëdd li nga xam ne moom moo di mbalit bi ndax wasaare bi nga xam ne ñu ngi leen koy wasaare loole mën a indi pollution visuelle waaye itam mën a indi yenn ci ay jàngoro yoo xamante ni salte moom moo koy joxe. ministre tudd nag euh, alam gi te duñu wax rek euh, ci ngelaw li nga xamante ne nii euh, moom la doomu aadama yi di noy di ko noqi seetlu gi ci daara ju kawe ji di UCAD am na ci nag laboratoire boo xamante ne nii lépp lu soxal kon wàlluk ngelaw loole moo ko tax a jóg ci lay sëgg di ca gëstu loolu nag dafay taxit ñu xam ndax li nga xamante ne nii moom mooy ngelaw lu ñuy noyyi ndax doon na loo xamante ne nii lu mucc ayib la ndax Ndakaar duñoo jàpp ni bokk na ci dëkk yu ëpp saxaar nag boobee boobee laboratoire ñu ne bu weesu loolu sax am na ay njeexital ci wàllu wér-gu-yaram yoo xamante ne nii léeg-léeg euh, maanaam di lu ñuy nooy euh, dina ko am ci doomu adama Ibou Diouf moo fa doxante woon. bu ñuy wax ci ngelaw bi ñu nooy fii ci Sénégal rawatina ci Ndakaaru ñu bari jàpp ne rek dafa polluer maanaam dafa am lu ci nekk loolu nag ñu mën ko xayma ci poussière saxaar wala sax. li ni mel. ci Ndakaaru rek mooy euh, dakaar c'est ville bu nga xamante ne dafa dafa am pollution pollution bi nag lu tax dafa am pollution bu ñuy woowee pollution naturelle mooy nga xamante ne mooy poussière bu nga xam ne day jóge ci désert bi ñëw transporté wu ba fii loolu day yàq qualité de laire bi am na beneen type de pollution mooy pollution bu nga xam ne nit nit ñi seen bopp ñoo koy def mooy oto yi moto yi xam nga industrie yi boo demee dans les zones industrielles comme Bel Air am na ay industries yi nga xam ne dañuy polluer air bi yooyu nag day tax qualité de l'air yàqu. ci seen xam-xam màcc jëm ci ni ñuy natte boobu la ngelaw yu gis ne rek foofu ñu taxaw ci li ni mel ndaxte jamono ji moom daanaka dafa polémique waa RFI dañ def dañ ne ñoom dañ ne Dakar c' la deuxième ville la plus polluée au monde. je pense que première bi Chine la war a doon wala Inde. mais loolu ñun ñi fi liggéey yëpp xam nañ ne du dëgg parce que Dakar lu tax mën a dañu dañuy mesurer polluant bi alors que beaucoup de pays boo xoolee en Afrique du kenn du mesurer pollution bi donc par rapport ak ñuy mesurer lañ ñu alors que boo demee à côté boo xoolee Afrique de qualité de l'air bu am Dakar bu am au Sénégal. fi ci université Cheikh Anta Diop Ndakaaru nag ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax seen laboratoire bi dina leen may ñu saytu boobu la air fu mu toll. bu yàqoo dafa am ay conséquences si santé wu nit ñi boo demee dans les hôpitaux par exemple ñiy liggéey si wàllu. ñuy liggéey si wàllu xam car dënn cardiologie ñoom ils se sont ils se rendent compte que depuis année yi yëpp dañuy gis ne maladie respiratoire yi dafa yokku dañ ñoom sax gis nañ ni am na ay cancer poumon yi nga xamante ne du ay nit ñooñu nga xam ne duñ ay tuxkat loolu da leen jaaxal ñoom ñoom ñëpp loolu nag dañ xalaat ne qualité l'air bu bu yàqu d'année en année moo indi moo waral loolu. ana nan la def bi wàññi jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci wàllu ngelaw gi li ñuy nokki loolu nag doon lu yitteel ñu bëri ba tax na. foow kilifa yi jël ci ay dogal yu sax dàkk. lu ñu mën a def mooy pollution moo am ne nit moo koy def mooy oto yi am na oto yi am dafa màgget day polluer énormément mun nañ créer ay. ay taxe xaw ma nu ñu koy tuddee ak état bi mun na jël ay jumtukaay yi nga xamante ne dinañ mën génne yenn voitures yi je pense que même ba ñuy wax ne voiture moins de huit ans yi mu ngi ci woon mais ba tey yi doon polluer yi nga xamante ne benn car rapide lu muy polluer oto yu ndaw duñ ko polluer mm-hmm. te loolu yëpp c'est pas bon pour la santé boobu la jafe ñu jàpp ne fii moom daanaka pollution bi moom dafi fës lool loolu ñuy nemmeeku ci liy bàyyeekoo ci entreprise yi liy bàyyeekoo ci woto yi wala sax nit ñi seen bopp li ñu def jëmale ko ci boobu boobule alam. jaajëfal ko bu baax eh, Ibou eh, Diouf tey nag ku yeewu ci sa kër ku ne génn ci sa ëtt danga gis nag eh, mu tooy loole di firnde rek ne jot naa tepp teppal ci guddi gi mbaa ci fajar gi ca monte newuñu ci nawet tey tamit du caagante ne nawet dafa jub si météo wax na li ko waral ab ngelaw la rek bu bàyyi ko ca tugal moo wàll si ba fii Fatou Bintou Konté tey ba ñu xëyee dañu seetlu ni Dakar ak la ko wër dañu amoon ay taw tawi sew waa météo du ñu xamal ni li ko waral moo di dafa am benn péex péex moo xam ne mu ngi jóge Europe di wàcc ci suñu dëkk yi lii ñu xoolee nag loolu mi ngi jógee ci seddaay boo xam ni euh, ngelaw loo xam ne dafa ànd ak seddaay ak euh, tuuti humidité jógee ci euh, réew bëj gànnaar yi lu ci mel ni booru marok ak ci réew tugal yi ndax foofu tamit mi ngi am ay perturbation ba léegi mi ngi taw am ay niir ba léegi loolu nag bu wàccee souvent dafay dajeeg fii nga xam ni euh, day dajeeg fii ci Sénégal wala fii ci Afrique sowu jant euh, air boo xam ne dafa tàng loolu nag bu amee mooy tax ñu am ay niir yoo xam ne day am humidité bu bëri. ñoom taw yooyu nga xam ne ay wis-wis yu sew la ñu ngi xamal ne bokkul ak benn yoon taw bi nga xam ne moom mooy annoncé lii nga xam ne moom moo di nawet baa ngi waaj a si. niir yi nga xam ne moom mooy joxe taw. taw nawet ñi ngi koy gën a seetlu ci euh, mu ngi jógee ci bëj saalum bi lu ci mel ni mbooru Guinée loolu nag dafa uteeg ak taw yu ñu am ni moo wax la ni léegi nii dafa jóge tugal ànd ak seddaay donc taw la yoo xam ne day xaw a ànd ak tuuti féex mu uteeg nag tàng taw goo xam ne taw tàngaay la taw nawet dëggantaan. Ngor Ndiaye mu di ingénieur prévisionniste di ñu xam di dellu si waat ci li nga xam ne nemmeeku nañ ko fii ci Ndakaaru moo di péex mi nga xam ne ba tey jugee gu fi daanaka Dakar dafa sedd ba tey. waaw na commencé tàng bu baax sax mais ñu ngi seetlu seddaay bi ba léegi loolu nag bu ñu ko xoolee dañuy gis que ni li nga xam ni moom mooy am ci réewu tugal yi ak ci Atlantique bi dafay am njeexital ci ñun suñu climat ba léegi. tax na foofu mu ngi am seddaay ba léegi. yëpp nag bu ñu seetloo lii nga xam ne moom mooy climat bi fii ci Ndakaaru dafa neex lool. bu fekkee ne sedd maa ngi fii nekk ba tey bu ñu nemmeekoo taw bi ci suba nag dafay gën a rafetalaat li nga xam ne moom mooy décor bi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku fii ci Ndakaaru. wér-gu-yaram tey ji nag euh, ñu jagleel ko allergie bu ñu ko déggee nag euh, muy yooye ñuy faral di gis euh, ci doomu aadama yu baree bari sax di ko faral di sabab waaye allergie tey ji nag ñu ko jagleel rek tuut tànk yi ci seetlu nag bari na lool lum leen di yàpp mu nekk ab xeet woo xamante ne nii léeg-léeg gone ga kon dana ko jëlee rek ci bu ko nokkee wala bokk mu jëlee ko ci loo xamante ne da koy lekk ba ci yoo xamante ne ni da koy faral di laal allergie ak li ko waral ak lan moo koy indi ay satupay réaction bu sa yaram di am na par rapport ak leneen lu bokkul ci moom. léeg-léeg mu nekk loo xamante ne du yoon lu ëpp ak lu ute allergie nag nekk loo xamante ne xale bi mën na ko jëlee ci ay mbir yu muy noyyi luy dugg ci biiram wala lu muy laal ci seetlu nag bakken gi mën na dem ba di sotti muy wàccu wala muy fësee ci yeneen i anam. ba tax ne. bu fekkente ne leerul la ne xale bi dafa am euh, allergie si tel ou tel produit da ngay dem si médecin yi nga xamante ne seen xam-xam màcc na si ñoom mën nañ la defal test yoo xam ne après mën nañ la génne liste ne la xale bi na moytu lii ak lii ak lii. waajur yi itam am si seen wàll am si seen taxawaay. bi fu mu njëkkee mooy si environnement bi environnement proche d'abord. lépp luy agent bi nga xamante ne seetlu nga ne xale bi su ko noyyee wala mu laal ko daf koy jural ay problème nga jëm ko soril xale bi beneen bi si topp. ginnaaw nag biir kër yi am itam yeneen i facteur yu ko mën a indi. lu si ëpp temps bi daf koy def parce que am na période yoo xam ne bu ñu ci tolloo genre réaction yi ñuy wax allergie dafay gën a bari que yenn période yi. am na tamit euh, wàllu environnement aussi di nga nekk ci kër boo xam ne peut-être poussière dafa bëri ci kër gi parfois aussi on ne nettoie pas bien parfois euh, la clim c'est la clim qu'on incrimine parfois ventilateur bi parfois c'est les moquettes hein tout ça si c'est pas bien nettoyé des fois dafay indi euh, yenn allergie si yenn xale yi surtout que ñoom ñoo gën a sensible. seetlu gi ne xale yi dañuy gën di am li ñuy wax allergie waaye ñi si gën a sonn nag bokk na si ñi nga xamante ne dañ ko donn si seen ay waajur. ñu wax eh, ci weeru koor wi eh, koor nag ak eh, tàggat yaram ñu bari nag ni ñu defee lu dul weeru koor bu jamonoy koor daanaka ñëwee rek dañuy soppi doxalin fële ca parc sportif bu Ndakaaru lañ ca seetlu nag mooy ñu ëpp daal ci doomu adama ya ngoon sa la ñu fay ñëw ngir rek di yëngal seenub yaram li ko waral koor gi la ndax faw yi tamit waxtu yi ñu tàggatu daal di soppiku Hadiya moo di Jóob juróom-ñeenti waxtu ci guddi moo jot mel ni bëccëg béréb bi fees dell ak nit ñi ñëw ngir doxantu ñeneen ñi ñëw ngir leneen. koor gi ci laa gën a sawar ndax ambiance bi ñëpp dañuy ñëw da ngay sawar et puis boo ndogoo pare boo boo ndogoo pare da ngay bëgg a doxantu feexlu. am na ay mag yu baax bu nekk daara bu nekk fee Nour Daane Ridis ñu ne géej baax na lool pour defar baat yi bu ngeen demee di yuuxut li ngeen bëgg ma naam di ko ci am pour tàggat baat loolu lañ ci bëgg te dañoo bëgg doon ay jànkat carrément ñu liggéey sa mbir rek moo ñor. li ci ëpp jumtukaay yi fa nekk la ñuy jëfandikoo. man dama ñëwoon dama ñëwoon pour pour pour entraînement. a wàññi sama yaram tuuti. Euh, dañuy liggéey haltérophile la plupart gymnastique barre fixe pompe abdo presque tout quoi presque tout ay flexion yooyu yëpp. football bi tamit ci la bokk. ndax presque chaque ramadan man c'est la première fois mu fi ñëw. parce que dañuy woor duñu am habitude dañuy def euh, suba bi ni ñu ko mën def euh, guddi bi waaw guddi gi rek la am temps pour def ko quoi moo dañuy ñëw entraîné après ñëw football. ñenn ñi dañu daal di soppi niñ fa doon ñëwee ndax koor gi. c'est pas évident après koor gi ñu bëri duñu am jot duñ ko mën a def am na ñoo xam ne peut-être koor gi la ñuy mën a am jot pour pour mën koo def man de vraiment koor gi. ci laa gën a mën a sawar daal. commerçant yi loolu la ñu wax nee na après ndogu soo amee sa benn ndog bu consistant soo ndogoo pare naan sa ndox bu bëri ñëw tërën légèrement nag légèrement la ñu laaj sama temps de travail bi tamit wàññeeku na. jaaykatu kokk bi tamit naka noonu. bon day nekk fi depuis six heures bu ne saa une heure guddi ñu ngi fi jaay bi ñu ngi si topp tuuti tuuti rek mais alhamdulilah daal ndax mu yaa ngi am sa dépense moom. fukk benn waxtu ci guddi mu mel ni dañoo waxante ñëpp daal di ñibbi bàyyi fa ñi nga xamante ni ñoo mujjee ñëw ngir rek tàggat seen i yaram. ma ngoog ñu du rek ci tàggat yaram ak wees wakkaam mi nga xamante ne nag kon noppi na rek ngir janoo ak stade Mbour gannaaw nag ñàkk déggoo bu ñu doon nemmeeku ci ñaari eh, équipe yooyu tey ji nag fas nañu yéene rek kon jàkkaarloo eh, ci ay jongante juróom-ñaari fan ak fukki fan eh, ci weeru juin loole nag gannaaw fukki weer ak benn yoo xamante ne nii jéeje amoon ca Demba Diop weesu na waaye ne nañ daje moomu amul dara loo xamante ne nii mën naa tax tey wakaam jotaat Ligue 2 ñu bari nag jàpp ni na programme ya tëddee moo waral Wakaam tey wàcc ca Ligue 2 bi Mamadou Fall. c'est c'est normal ko ñu ñu wàcc Ligue 2 dans ces conditions la yaakaar gu tas ci kaar kanamu waa IESO doxalinu waa lig bi ñoom nag mënuñu ko comprendre club bu village Lébou bi ñu yóbbu ko ci Ligue 2 gannaaw ab programmation bu awul ci yoon. waaw programmation bi c'est sûr que mooy yóbbu Ligue 2 parce que ñun ñuy commencé jouer pratiquement en février février ba fin mai 4 mois nga bëgg a jouer tout le championnat on a joué pratiquement 4 <laughs> mois et demi nga def 30 matchs loolu amul fenn ñun rek lañ toog teg loolu. championnat yëpp ci àddina doo gis benn championnat bu demee ni nga xam nit ki day jouer tous les 3 jours ou tous les 4 jours mënul nekk mois 3 mois boobu ba tey moom la ñu nekk loolu tax ñu nekk moo tax ma ni lu ñu la. maa kaw wax ba ca kaw. mu weesoo nag wàcc gi ñu wàcc Ligue 2 loolee taxul ki nga xam te ni moo di président bi Ejo kontaan lool ci taxawaayu waay Stade de Mbour ngir ñu amal seen match bile. ñun ñu ngi euh, rafetlu euh, le fait que Stade de Mbour euh, ñëwaat si seen décision ne dañuy jouer contre Wakam. dans tous les cas dañ na a ñu jouer ko benn yoon nu mu gën a gaawee ñu tourner la page cette page sombre de l'histoire du football ñu tourner la page dem vraiment vers de lendemains meilleurs quoi. ñenn ñi jàpp ni loolee nag du lenn lu ko waral lu dul xaalis moo tax stade de Mbour nangoo football ak ISO. xanaa doo nañu ñëpp équipe bi sax dàmp nañ ko. équipe sax ñu koy dàmp ba président naan xaalisam la xaalis xaalis bu koy permettre mu fay ay salaire kon su amul woon loolu du leen fekk ah déet ni équipe bu Wakam bi moom ligue professionnelle bi da ko daanoon gannaaw ab violence bu ñu nemmeeku woon ci finalu ligue bi ci atuma 2017 décision bu taas moo leen ci dugalaat USO di dajeek Stade de Mbour gannaaw fukki weer ak benn bu mu weesoo ci drame ba amoon ca Demba jopp mat yi ñu jàpp ko juróom-ñaari fan ak fukki fan ci weeru juin. c'est normal que ñu ñu wàcce Ligue 2 dans ces conditions là. jaajëfal ko Mamadou Fall foofu la ñuy tàggatoo ak yéen mbokk yi sant leen gërëm leen 20h Cheikh Tidiane dina fi teew ngir xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.